Euh, jël nuyoo euh, xalif généraux yu nekk ci réew mi yëpp teg ko ci loxoom euh, nuyu administration locale bi nekk ci cana Thiénaba teg ko ci loxol monsieur le sous-préfet bu Thiénaba ak njaboot gi mu àndal ci liggéey bi waaye nuyu téléspectateurs yi fàttewuñu leen di am mbégte nag di ànd ak yéen comme niñ daan àndee ak saa su nekk ci jamono bu nekk lépp loo xam ne xew na cana Thiénaba ñu ànd ci ak yéen tey nag dañoo ànd ak intercoalition wallu askan wi Euh, wollu ak yeewi askan wi euh, la ñu àndal muy intercoalition boo xam ni ñoom euh, dañoo àndandoo di dagaan baat baatu askan wi ci pencim ndaw réew mi macha mu ñu nekk ay sénégalais yoo xam ni macha allah ñu ngi liggéey liggéey bu am solo waaye buñ ko wàccee fii ci biir Thiénaba ñoom tamit noonu la ñu àndee ci commune Thiénaba noonu la ñu àndee ci département Thiès waaye noonu la ñu àndee ci région Thiès. Euh, ñu war a taxaw nag waxtaan ak askan wi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi leen di bége euh, taxaw ak ki nga xam ni moom mooy coordonnateur yeewi askan wi muy monsieur Moussa Ndongo euh, moom war naa yëkkati kàddu yëkkati kàddu yëkkatil ko kàddu yëkkati kàddu coordination bi wax liggéey bi fan la toll ak naka lañu def ba àndandoo waaye bu daanee le daaneelee monsieur Gora Ndiaye mi nga xam ni tam moom moo fi teewal moo nekk coordonnateur wallu askan wi moom tamit dina yëkkati kàddu euh, leeral euh, mbokku téléspectateurs yi euh, àndandoo boobu nan lañ def ba tënk ko fii ci canaba wala ci réew mi waaye bu daaneelee ki nga xam ni candidat la ci liste intercoalition boobu muy liste national muy coalition Wallu ak Yewwi Askan Wi muy monsieur Ismaïla Diallo ma koy wax honorable député Ismaïla Diallo nekk koo xam ni yàgg na Euh, liggéey euh, ci wàll woowu euh, moom mu nekk doomu Thiénaba ndax damay wax ni nit fa nga yeewoo sa njaboot di fa yeewoo nga fay daanee doole foofu nga dëkk te Thiénaba adopté nañ ko tamit waaye may leeral mbokku téléspectateur yi bii seetaan ni moom candidat la ci listu yeewi askan wi ci quoi intercoalition boobu kon Euh, mbooloo mi taxaw dañuy addu jëme ci naka la ñuy euh, appeler naka la ñuy wooyee population bi naka la ñuy wooyee waa Thiénaba naka la ñuy wooyee euh, waa réew mi pour que rek ñu jàpp ci list boobu ngir ñu am ndam ba moom mu mën a taxaw taxawaay yu am solo foofu ci pencum ndaw réew mi liggéey fii ngir askan wi. kon kaddu gi mu ngi njëkk a dem ci monsieur Moussa Ndongo bu daanelee monsieur Gora Ndiaye dina yëkkati kaddu. bu daanelee ki nga xam ne moom mooy tëj kàddu yi mooy euh, honorable député Ismaïla Diallo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di tàmbalee nuyoo bi ci suñu xalif xalif général de Thiénaba muy Serigne Hassan Seck di ñaan yàlla yal na ko yàlla defal tawféex yal na ko yàlla defal taysiir biñ ci jógee ñu ñaanal ñu nuyu imaam ratib Serigne Cheikh Amadou Seck di ñaan yàlla yal na ko yàlla defal tawféex waaye yal na ko yàlla defal taysiir biñ à travers l'illustre chef de village muy Serigne Hassan Niane Seck ñu ngi nuyu toute la population de ba di leen ñaanal tawféex également di leen ñaanal taysiir tey nag euh, ñu ñëwoon fii ci kër docteur Diallo pour def benn déclaration de presse par rapport au contexte politique mbokk yi boo leen di xool am na coalition bu mag buñ taxawal ñu tuddee ko la grande coalition de l'opposition muy coalition Yewwi Askan Wi lan moo tax coalition bi tey booy xool Sénégal fi mu toll daanaka secteur yëpp ñoo am problème foo laal rek yaa a des problèmes loolu moo tax aujourd'hui Sénégal dafa nekk à la croisée des chemins loolu moo tax boroom euh, xam-xam yi ci boppam ak képp koo xam ni day yëngu ci politique xam ni aujourd'hui coalition dafa nekk nécessité looloo tax ñu def benn bloc àndandoo établir la grande coalition de l'opposition muy Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi nag euh, biñ ko tëggee ci élection yi passé muy élection locale yi def na résultat yu am solo résultat yoo xam ni résultat yu honorable la mais résultat yi dafa am luñ ci jànge ñu gis ni certes élection locale yi am na solo palier la mais également élection législative yi baneen palier la boo xam ni palier bu am solo la moo nu war a conduire au niveau des élections présidentielles loolu moo tax ñu xool au niveau national fépp fi nga xam ni euh, yeewu askan wi moo remporté woon élection locale yi ñu ni foofu nag euh, liste yeewu askan wi moom moo fay dem mais également ñu ñëw jël wàllu dugal ko ci l'intercoalition muy yeewi wàllu wàllu également defoon nañ ay résultats yu am solo ñoom également ñu xool fi nga xam ni amoon nañ fay ay résultat ñooñ ñu jiital leen fa. kon élection yi ni muy demee yeewi la ak wàllu département yi nga xam ni yeewi moo fa gañe woon listu yeewi la ñu jiital mais fi nga xam ni également wàllu moo fa gañe woon foofu liste wàllu moom lañ jiital. loolu moo tax intercoalition bi yeewi la ak wàllu fii nag au niveau de du département de Thiès il s'est trouvé que élection yi passé yeewi ci boppam moo fi gañe moo tax képp koo xam ni bëgg naa voteel euh, yeewi ak wàllu coalition boobu fii ci département de Thiès liste yeewi bi moom ngay jël muy liste bi nga xam ni am na ñaari ñaari picc yi mooy liste bi nga xam ni également amul amul photo bu ko defee ñi ngi appeler tout la population ñu jël liste bi euh, yeewi bi ñu dugal ko ci urne bi moo tax élection législative yi danoo war a am une grande majorité au niveau de l'opposition de telle sorte que Macky Sall moom day xam ni jeexal na fii mi ngi mel ni guy goo xam ni rek xàq na mi ngi daanu daanaka mu egg suuf moo ko desee kon élection yi passé enjeu bi dafa am solo ce sont des les élections législatives, mais qui ont un enjeu présidentiel. Donc, ñu ngi woo toute la population de la commune de Tianaba, nous votons vivement pour la coalition bi, Mouyewi ak Agwalo. ba pare dafa am une particularité boo xam ni dafa am ci élection yi passé parce que booy xool au niveau de la commune de Thiénaba amul benn candidat boo xam ni investir nañ ko mais heureusement on investi koo xam ni il a toujours défendu les intérêts de la commune de canaba il a toujours été un acteur social kooku mooy kan mooy docteur Diallo moom moo nekk ci pharmacie bi nekk Thiénaba Gare kooku nag yàlla def na mu am une bonne position au niveau de la liste des suppléants mu occuper la 17e position kon docteur Diallo aujourd'hui c'est une opportunité à saisir pour canaba incha allah buñ ko votalee mu dem au niveau de l'Assemblée nationale il va représenter dignement la commune de Thiénaba parce que léppam fii la nekk kon gars yi li ma leen di wax mooy lan de la résistance aujourd'hui nous devons passer à la prise du pouvoir à travers les élections législatives yàlla mi nga xam ni mooy maye ndam yal nañ tàmbalee élections yi ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko eggalee ci alhamdulillahi rabbil alamin cheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi di sant suñuy jur ñu ngi nuyu d'abord ki nga xamante ni moom mooy kilifa dëkk bi muy la xalif général Baye Alxasan Seck yàlla na yàlla guddal fanam te yokk ak wéram di nuyu euh, l'imam ratib Serigne Cheikh amatu Seck ak ñi topp ci moom yëpp mais également le chef village village Serigne Alassane Niane Seck jël nuyoo boobu teg ko ci loxo mu jàllale ñu ko ci 38 village yëpp ak amoo yi nga xamante ni ñoo fi nekk di sant yàlla bu baax di am mbégte tey ci daje bii nga xamante ni tey à travers. Thiénaba TV donc ñu ngi koy seetaan donc euh, ñëw ci ñetti poñ rek d'abord lan moo waral sunu teewaay fii ci coalition bi ñu tudd léegi sëñ Moussa ñëw na ji muy intercoalition wallu ak ak yi ku ne xam na ni Sénégal yëpp donc 46 euh, département la am na département yoo xam ne dañ ko jox Yewwi yi ñu jox ko wallu donc def naa ne Moussa expliqué na ko suñu teewaay nag benn mooy que ñun lañu bokkoon ci parti politique muy PDS donte local yi passé wax dëgg yàlla demewuñ ci parce que dafa am ñun gëm-gëm bu ñu am mooy mbiru local ak mbiru député la ñu amale mooy parti politique ñun tënkuñu ci donc loolu dañ koy xamal ñi nga xam te ñoom ñooñu seetaan li tax nag suñu présence fii mooy d'abord parti bi wallu ak yeew yi ànd nañ donc fépp ci Sénégal kon loolu tax na ñun tamit war nañ mën a ñëw participer ci lii nii loolu benn la beneen bi mooy fii ci département de Thiès ku ne xam na ni am na ay député yu ñu fi tabb mën nañ tudd ku mel ni Birame Souleye Diop de passage ñu ngi ko ni honorable député mais également Alassane Ndoye kon am na ay député yu nekk biir Yewwi am na ay député yu nekk biir PDS loolu bu ko bu ñuy xam ko mais li ëpp nag tey jii ñun ñu taxaw engagé wu fii ci commune bi taxaw pour battre campagne pour que liste intercoalition wala Yewwi boobu am fi ndam mën na ni donc ñu ngi nuyu de passage honorable député donc euh, docteur Ismaïla Diallo mi toog sama wax taxaw sama côté te yàlla def ñu am sens boo xam coalition bi am na ko te yeneen coalition yi amuñu ko te loolu war a leer population bi nga xam te ni ñoom ñoo ñuy seetaan mooy huit liste moo fi ne maa ngi défier na ñu fi nekk ñëpp liste yi fi nekk ak ñi leen di campagnal nañu ma indil benn liste bu doomu Thiénaba ne am fa position boo xam te ne tey jii njort nan ni bu élection kon chance boobu la defal mooy mooy yeewu bii di ñaan population wu Thiénaba li nga xamante ni nii mën naa ni ca 2000 et quelque Talla Seck moo fi nekkoon député def naa ne depuis loolu nag amatuñ koo xam te ni moom leen dëkkal mu nekk député ñu ngay ñaan tey jii yàlla indiwaat ko ci 2022 bii ci docteur Ismaïla Diallo mii loolu la ñuy ñaan population bi te population bi nag yéen ñu mën a jàppale parce que bëgg nañ te am nañ njort lu rafet ni Diallo incha allah rab bi dina nekk député mais dañuy bëgg population Thiénaba yéen ngeen bokk ci ñi ko participer. man ku ne xam ne ne bii mooy sama deuxième élection mooy participer ci élection législative 2017 li ma taxoon di battre campagne mooy dafa amoon ku nekkoon ci doomu commune bi amoon position bu baax moo taxoon mooy wut di battre tey nag l'histoire boobu moo ñëwaat tey dama gis ku nekk ci commune bi dëkk ci commune di fi yeewoo. di fi liggéeyee njabootam gépp ne fi ñu investir ko mu yor position boo xam te nii jàpp naa ne bu ñu ci jàppee jàppale ko incha allah rabbi yàlla dina ko def député te ñu lay ñaan yàlla ñu ngi tàllal loxo nag population wu Thiénaba bu nee population wu Thiénaba du Thiénaba ak Thiénaba gar rek mais commune bi yëpp la ñuy waxal lii ñu leen wax ni nag maa ngi leen défier ku ñëw ci yéen di leen campagne laaj leen ko kan lay campagnal ban député bu def ci wala ban député am position bu baax parce que li ma wax foofu noonu pour leeral ko tey jii ñun bu ñu neexoon dem ci yeneen liste yor fa yeneen position yoo xam te ne leer nañ du nekk député parce que li ñuy wax dañu a xam xew lan la parce que nit mën naa ñëw dëkk dëkk bi tey am position boo xam te ni wóor la du nekk député kon loolu dafa war a leer ñi nga xam te ni ñoom ñooñu seetal kii nag wax dëgg yàlla ak coalition bu mag bii nga xam te ni fa la nekk am nañ jort ni allah allahu rabbi le 31 juillet dina bokk ci ñi nga xam te ni ñooy toog assemblée te moom mii jàpp naa ni tey duñu leen ko présenté fii dëkk bi parce que ñëpp xam ngeen ko fi lay liggéeyee comme ni ko Ndong waxee léegi def na fi action bu ne mu ngi ci biir kenn jàlloo man faa kenn ko laaj je pense donc ñu ngi ñaan population bi ñu jàppale ko xam ne seen doom ngeen jàppale ñun daal lool mooy sunu suñu kàddu di sant yàlla bu baax nag di nuyu nag yi nga xam te ne ñoom lañ dajale fii yëpp bàyyiwuñu kenn pour bañ a lim yéen gis ci écran ak ñoo xam te ne nekkuñu fi je pense que donc daal euh, sant nañ yàlla bu baax di ñaan yàlla le 31 incha allah ca ngoon à 17h wala 18h wala 19h fekk carte gi leer nañ ñu ni intercoalition wàllu yeewi gagné na Sénégal yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum euh, mbokki canaba yëpp leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant waaye d'abord dañuy jël nuyoo gi teg ko si suñu kilifa mooy la xalif général de canaba Serigne Assane Seck di nuyu aussi imam ratib Serigne Cheikhou Amadou di nuyu chef de village. Serigne Alassane Niane Seck mais di nuyu également chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci commune u Thiénaba yëpp di nuyu aussi tamit képp nga xam ne mu ngi yeewoo Thiénaba man nag wax ji duma ko guddal ndax Moussa Ndongo wax na ko mais également euh, Gora Ndiaye wax na ko donc lu may def rek lu dul tàllal sama loxo d'abord ñu ñaanal ma ndax sañ naa fee ñaanloo te fii mën nañ fay ñaanloo itam loolooy màndargay dëkk bi tàllal sama loxo aussi ñu jàppale ma ndax jàppale ma mooy jàppale rek Canaba ndax ñii wax nañ ko fii laa yeewoo sama teraanga fi la ne te tam beneen affaire mu ngi ci dolleeku mooy incha allah bu yàlla defee jàmm ñu ngeen yónni ma fee ci assemblée nationale ba gëm naa ne amul benn doomu Canaba bu may dee ni ma wax lan mooy di ma wax problème mu Canaba ndax problème mu Canaba ñoo ko bokk jàmm Canaba itam ñoo ko bokk donc di gërëm di sant euh, di tàllal loxo bu baax mag ak ndaw képp ku nga xam ne mu ngi yeewoo ci tund wi ngeen jàppale ñu ngeen voteel ñu liste bi liste yeewu askan bi liste yeewu askan bi nii la mel amul foto ñaari picc yi ngeen di seen ñi dagg seen yi di naaw ngeen di xàmmee couleur bi moo gën a set moo gën a leer ngeen jël ko ngeen dugal ko nii incha allah am nañu chance ngeen am seen doom seen jarbaat seen rakk ñii seen mag mu nekk ci assemblée nationale ba représenté leen fa te dina leen fa représenté dignement incha allah bu yàlla defee jàmm merci beaucoup. mbokk yi dellu jaajëfal leen kon euh, mu ngi noonu déclaration baa ngi noonu bu intercoalition yi ak Wallu Askan Wi.